salaamaaleykum sëñ Abdourahmane ndax boo bëggee dégg dëkk lii may bëgg a wax moo fi nekk maanaam nag na doon naa xaar ba papa waaj nekk ma mën ma mën a rafet ci ginnaaw waaye comme xaar naa ko ñu wut baal ma ma jéngu ko rek waaye daal Ousmane Sonko moom li ngeen koy jiiñ ci boppam ngeen war a taxawal xool ba xam moom la am déet comme moom daa nekkoon impôt et domaine képp Macky Sall dàqee ko ko fa ñu ko ñu ko farale Macky ci cuuneem lay tabax Ousmane Sonko képp di ko xeex muy jéggal sutaaka yi waaye Sonko moom maanaam man damaa gëm ne ku dul Adama baro fi di avec songu manam songu gënul la yew mbokk yi dal nak jamm ci sen sen YouTube kawtf TV International